Euh, ba tey ci vote yi mooy lu jëm ci euh, euh, cinquante 57 bi article loi 57 bi article 57 bi tamit mm-hmm. kon dafa doon loo xamante ne bi lu ñuy def la contre Ousmane Sonko tamit waaw xam nga article 57 bi mm-hmm. ci Khalifa nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko changé mm-hmm. article 57 bi à l'origine ci code électoral Sénégal dafa doon ne tout Sénégalais pour faire acte de candidature. ok tout Sénégalais peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions dage et des cas d'incapacité et d'inéligibilité prévus par la loi. Mm-hmm. bi ñu bëggee faagaagal Khalifa Sall. Euh, bi ñu bëggee faagaagal Karim Wade. Karim la ñu modifier loi euh, L57 daal di ne tout Sénégalais électeur électeur bi rek nañ ci yokk bu njëkk bi première premier article bi amul woon électeur dañ ne tout sénégalais sénégalais bu ko neex mun nga nekk candidat ok après bu ñuy bëgg bu ñuy bëggee dàq xarit xarit Karim ñu ne tout sénégalais électeur électeur mhm. ba pare tere xarit Karim Wade mu inscrire ci donc tey ji mhm. buñ ko modifier tey buñ tey jii cette loi là encore comme je l'ai dit autant L59 bi autant bii là mm-hmm. ça va être la même chose cest à dama jàpp ni que c'est des choses qui ont été décidées pour faciliter le retour euh, de leaders politiques bi pour faciliter l'exclusion d'un leader politique d'accord mais par exemple euh, comme ñiy wax waxu amnistie pour Karim Wade ak Khalifa Sall. Mm. est-ce que lu ni mel du doon benn euh, euh, benn porox ndoolu mën naa ko wax ci ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci nguur gi wala ñeneen parce que buñ ne amnistie ay fee la ñuy bu ñu ne mm. da telle dat ba telle date képp ku ci defoon lu xóor wala mm. dara daanaka lépp la ñuy effacer xam nga du yem ci Karim ak Khalifa Sall. donc est du profiter aussi tamit ci. ñenn ñoo xam ne ñu ngi ci gouvernement bi wala waa ñeneen pour ñoom it ñu effacer waale seen ay mbir est-ce que du couteau à double tranchant. man d'accord moom ci loi d'amnistie bi. Mhm. pour justement crainte yi ngay wax. Mhm. parce que tey jii mu ngi nii bi ñu bëggee dugalaat Karim Wade ak Khalifa Sall. dugal nañ leen juste en modifiant. justement. mais euh, pourquoi amnistie bi garaaw. Mhm. Euh, tu l'as dit maam Khady. mooy on amnistie des faits. tey bu président ne dem loi si bi ma bugg a dugal ce sont des faits yi nga xam ne c'est depuis deux mille cinq ba deux mille vingt quatre mooy maanaam képp kuñ ci topp ci wàllu luubal xaalis nguur képp kuñ fi topp ci wàllu lii képp kuñ fi topp ci wàllu euh, defar faux billet les faits sont amnistiés mmh. mooy que tey jii tous ces fameux rapport là yi nga xam ne OFNAC def na ko rapport yi nga xam ne IGE def na ko rapport yi nga xam ne Cour des comptes def na ko rapport yi nga xam ne les différentes inspections générales de finance def nañ ko di ci dàq di ci topp ay nit rapport yooyu tey jii xoolal dañuy jël lépp dugal ko ci mbuus dem tàbbi mu mm-hmm. tàbbi ci géej c'est-à-dire le Sénégalais le Sénégal va perdre des centaines et des centaines de milliards yi nga xam ne qui ont été indûment Euh, pris par certains donc loolu mooy le danger de la loi d'amnistie mais tey encore une fois je dis rien que les modifications de ces articles là war na ne que on n'a pas besoin d'une loi d'amnistie euh, muy benn ñaareel rapport nag yi président daf ko wax dafa ne woon bi muy toog nag bi maa ko créé pour ñun ñii nga xam ne ñoo fi falu depuis 2012. mais depuis 2012 ak léegi rapport yi nag génne yépp gisoo ci benn rapport a une exception près man benn yoon laa mës a gis rapport nag ñu exécuté ko te dañ ko exécuté c'était un le directeur des transports OFNAC daan nañu poursuivre ñu poursuivre waa ji tëj ko kaso ca biir kaso ba mu nekk le président de la république jël décret nomee ko jox ko beneen post mm. defal ko promotion man benn yoon boobu laa mës a gis lii nga xam ne mooy OFNAC jël rapport wax ci li ñu toppee ko donc tey ji une loi d'amnistie je dois elle je dis encore une fois elle n'est pas la bienvenue parce que tey Khady on ne peut pas dire quelle est l'étendue des dégâts ou l'étendue du carnage financier qui a été fait sur nos deniers publics kenn mënu ko wax mmh. waaw loolu nag ëpp na nag sénégalais yi mun nañu baal peut-être ay de sang comme ça été le cas euh, sous avec la loi ESA mais nag ay crimes financiers mm-hmm. y a combien de villages combien de département combien d' yi nga xam ne tey jii mënoon nañu am structure de santé bi nga xam ne nit ñi daañu fa faju ji ñu dem faj mënuñu mënuñu ko combien combien combien de de de d' de de de d' écoles et de tout ça nañu mënoon créer avec ces sommes là mm-hmm. yi nga xam ne qui ont fait l'objet de détournement mm-hmm. donc moi une loi d'amnistie je suis pas